dal asraari yow boroom secret yi wan nixali ak may ya allaati ya nga xam ne xad ax jal na gàcceel nañu mooy cosaan waaye booy jàngoo yi moom laati xadax jal na rek ngay jàng xad xad jal na gàcceel nañu xàqan ci dëgg-dëgg kulla da maayin gépp géej yaa man yow nga xam ne yu rab bi dana tërbiyaa bi maa ca la nga xam ne rabbaa yare woon na ar rasul yonante bi bi ci moom fadat ka jot na la nafsi sama bakkan wa awlaad yi ak samay doom wa abaa yi ak samay baay daa waqati sëñ bi woo ko ci yenti way njëkk yi mu ne ko yow sama sang bi satoo ci habibullah di sama wéerukaay yow mi nu gindi ci alquran ak hadis yow mi yàlla may fatu ubbil la may la kasfu mooy wan la secret yi yow mi nga xam ne yaa ñu dàqal lépp lu lëndëm yow mi yàlla may ay leer may la ay secret may la ay may yoo xam ne ci dëgg-dëgg rusloo na géej ndax daa baree bari ba may yi daa baree bari ba rusloo géej yow mi nga xam ne yaay tarbiya taalibe yi ci li nga xam ne rek moom la yonent bi daan tarbiya saxaaba ya ne ko yow day sama bakkan ak lépp lu ma am muy doom mbaa baay muy leneen def naa ko muy sa njot loolu nar a jot rek na dal ci man maag ñooñu ma tudd te bàyyi la fi inni naka man raaytu ko gis naa la dooni ngay doyluloo almu'dimina way ñàkk ña maxan boole seen fa jiitu dama dikkal baabaka sa bunt ab xii di sàkku xayra ixnaa in ngëm ji ak doyluloo dama laa gis ñu ñàkk ñi bu ñëwee ci yow nga jox leen jox bañ doyal sëkk moo tax ma ñëw nag ma itam bëgg nga jox maa jox baa doyal a doyal fekk li mu wax du alli aduna da jublu barke ngërëm ak àgg kamara ay tukka ni ma la gisee tux yi ngay dundal xalba yi dana sin xolub borom tir faj ituma dikk faj ituma ngir sopp li tatheerin ñal ak laabal wa iyaayit ak dundal dama gis bu nit dikkee melni xolam dafa dee te xol ba bamu set delloo xol ba muy dund ba mel ni mësta dee may itam ma ñëw nag bëgg nga def ma noonu sama xol bii dafa tilim fóotal ma ko sama xol daa mel ni sax lu dee dekkalal ma ko anshatta yaa ngi xamle baalata ful jin lu réer loo xam ne ak may la kunti goog ne kon naa man mii naa shidaha di aji laajte ko waxadd hodiitu te jubaleef na ma li inshaadin jëm ci sadd way wa inshaadin ak sos xasida ne ko dama laa dégg nga yëgle naa kuréer le nàngam te li nga wax li ngay wax naa ko kuréer le man moom laay laajte loolu mooy may guddi ji may gu rëy rëy daa mel ni moom laa dégg nga naa ku ko soxlawaay te fekk man moo ma tax a jokk damay ñëw nag bëgg am may guddi ji googu moo tax ma saddo yi di sos qasida gi le sama mbolo mujjitam hun aji dajalola la bika ci yow al yawma ya ustaz yow ustaz bi wa qad tafarraqa te teqalikona hani walisma shamlul la wa ay mbolom tartar ni mu ñew go ci yow da melni sama mbir dara jogu ci won lepp tasaro waye bima ñewé dafa melni lepp jagat lepp awa ci la tasaro kay moy ci yi nga xamni ñoom woron taj ma taj kapp ci wet gu ne ñoom ñoo tasaaroo waaye leneen lu yàqoon lu ne defaru na ndax sa mbaax lakum yel na leen xalaa kulli xalqillaahi ci mboole mbindeefi yàlla yi jàll màgg na yeddul loxo wala xéewal tuula lu gën a gudd tanoo bu loolu dana wóotu manaa ban naari wuutukaayu sawara wal maay ak ndox ndax fan naaru sawara wa lam ta du gàttañ lu xarqan ci ak lakk tin haddu yi ñel noonu ya maxan boole seen wal maaw ndox ma lam ya amu du gàttañ lu nafan ci njariñ lil ahibbaay lil ahibbaay ñel soppe ya dana ko mbindee fi yàlla yépp yàlla la baaxe nga mel na ci ñoom bu dee ci ñenn ñi ñu mata jariñ da nga mel ci ñoom ndox di leen jariñ noonu yàlla yi mata alag nag nga mel ci ñoom sawara di leen lakk xam ne su daa dajale yëpp yëpp ak fep fep la ay bëdé ben xéet sik fi fii ku muy nekk ci yéen siwa naxari simaani lu may loj way duuf ya wa iqad al qudur ak taal cin ya li dayfin ñal gan jaahin guri aji xif jaahin guri aji dik amoo seen sik sumay ku dik te xif fekk nga defaral ay gëléem ak yeneen yu duufa duuf te yàlla rek tax tàllu ci yi ñuy togg te lexal jaami yàlla yi ngir yàlla rek moo tax nga di ko def loolu de bu fekkee am nga sikk mooy su sikk loolu la ñuy wax takidul matxi bima yushbihu damm maanaam feetleew tagg luy muru ndax bu ne amul sikk lu may te lu may jooju sikk la fekk la mu wax boobu aw tagg la boole ca du sikk tufut yi da maye al uloo fa junniya da nga jubale junni ya ilaa man jëm ci ka nga xam ne jaa dikk na yàpp lu bu xaa di leen sàkku min kuy naw xin ci wépp xeet bilaa man ci lu ñax wa isayin akuk lor da ngay maye ay junni junni ci xeetu lu ne leen lu ne ay junni junni nga cay may ñu ñëw di ko laaj si te du yàgg-yàgg ba nga ñax ca kenn ñax mooy dafa kenn lu baax ba noppi di ko wax naa ko yow day maa la nàngam bu lu ko nag man nàngam loolu mooy man lu day yàq lu way defon ci lu baax parax sun borom na la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha bu len def lu bax nopi diko yak ko ci ñax moy diko wax di ko di wax ko kana ka mal nangam mal nangam mbaa nga lor ko ci di ko liko li ko wax ne mu yek ko motax mo ndi fi batay wa ji mu tolok bil manni wal adha ay junni junni ngay joxe ci xeet lu ne ña aajo aajowoo te rek tax do gis sa bop sax day jàpp ne yàlla liñ jox rek mu jaare ci yow yebnal karimi yow doomi aji tedd ja al karima ja karimi ja aji tedd ibnil karimi kay doomi aji tedd ja al alimi kay aji xam al mudhibid kay aji dàq jàngoro mudhib daa bàyyi ko ci azhaba demal na mooy yóbbu na rek kon ma ngeen dàq moo gën a yomb a xam wabnal wali tey doomi wali wa alxali yi muy naat ci alwali yi boo ne ya mu dellu ca ibna nam defe woon fe alkarima ibnil wali yi kay doomi wali wa ibni dellu ci wali ji kii mu daafile alxali kay aji kawe ibnil wali yi kay doomi wali yi wa alxal aji kawe varfi xal yaayin kay ndabal kawe xud jàppal xidmatan ab liggéey min muridin bàyyi ko ci ab taalibe laa xinaa boo xam déet njariñ wala déetum koom loxoo di ko ñeel xasidatan xasida la xadd xakaaxaa goo xam ne niru na ko badru zalma in weeru guddigu lëndëm lëndëm gu taratar dana ko yow mi nga xam ne da ku baax ñu baax meññ la nga xam ni man nga ne danga nga di ku tedd bàyyi ko ci ku tedd kookee bàyyikoo ci ku tedd kookee bàyyi ko ci ku tedd muy wéy rek ba ca ñu baax ñi mu yonante ba ay gaayam yow ci sa bopp ngay waliyu di doom yi waliyu waliyu woowee di doom yi waliyu muy wéy rek nag moom it noonu da ko ci noonu ne ko jàppal liggéey bi ma la liggéeyal muy xasida gi ma la jox adiya ndax amu am ko mu ma lay jox waaye kon xasida gi mooy saab liggéey xasida gi nag moo rafet ba weeru guddig la lëndëm ni weer di rafete bu feeñee ci biir lëndëm noonu la xasida gi rafete bur data maddahin mbubum tagg la musi jat bopp ràbbeef na ko ba min waalin muha ci ràbbukaayu xel ya annuha jamhu nuhyatin la min wal ñu wax kukk yat kukk manam ki rab sir lolu muy rabbe yat wo muy rabbe mo tudd min wa wa turrisat te boro def ko bi mahan ci ay mahna misli jawsa yu melni bidiw jawsa xasi dag lay waxna da melne mbubum tag mo xamne xel mu rafet rafet moko don ñu ko nak ay mana yo xamne maanaayu rafet rafet la ba mel ne biddiwu jaw saa kon day xasida goo xam ne rek baat yi dafa rafet maanaa yi rafet dikkaran muy ab xiik dafa xuqub dana kawe jamaalan ci ab taar kulla waaniyatin jëpp jongoma azrat xeebloona bi hindin ci hind ak asma wa xamsaayin ak xamsa xadd faaxat kawe na sawaaxibaha ay moroomam bi xusni wasfika ci rafeti sa melo ci rafetuk sa melo min ajji saa ngir lii xasadat xaa añaane na ko kullu xadraayin bépp xiik yàggal ñoo tuddee seen xasida jongoma bi koy jox kilifa mel ne ku wët jongoma ju rafet rafet mu ne ko ab xiig la ak njege maar la boo xam ne moo gën a jongoma mboolem jongoma yépp yépp boo ko gisee sa xel génn ci hind mbaa asma mbaa saa ay turi jigéen lañu te mu ne ko dara taxul lu may li ma ci wax muy sa mbaax ak say melo yu kawe moo tax mu féete kaw ay moroomam ba ay moroomam dañ koy añaane maanaam boo ko jàppee njege maar te fekk na xasiida la ne ko saway sa mbaax yi ma ci tudd rek moo tax mu féete kaw xasida yi ci des ba mel ne bu doon ab njegemaar nga ne jongoma la joo xam ne ay moroom yi jongamaam dañ koy añaane ndax féete gu leen féete kaw xadd zufat toggeef na ko ileeka jëm ci yow ma mal aroobati ci bisu ajjuma wata xakkam na nga àtteewu nag valmada yow boroom lef ma an naa yi may aji sori fii qadri sadaax ci kem can nga bisu ajjuma laa togg séet bi yët la maanaam xasida gi bisu ajjuma laa la ko andil mu mel ne séet duma la wax ne la nanga mooy ak canam yow yaay seet bu ci jekk ci can rek nga ne ma lii mooy can gi وليس غيركم دير كلين كف ان مدي اب نولي لا نيل كو واذا قبلت بو نغو نك فضلا سي سام باخ ريك سي غنيل فيا فوسي كون يمنا سمك تخي بي الا ان اي خيول دما جابني خشي ري جي وي جونغوما جي يو ريك يا كو موتاخ ما انديل لكو سوما كو نانغولي باج مكو ديلو نك سام باخ دونغ لا تخمنا ني سو بوبا تخينا با نوبي امنا خيول يو امول ابو lam an taxilha sàccuma ko wa ma ba loxtu te jéggiwuma dayoo fii ko ci yow walam am ndax ku ma te tagguma leen ba xulu win ci ak teengal laa déedéet wa ak akuk jey intihaal mooy sàcc way maanaam fekk way jaambur nga ne maa ko way dane ko xaside gi yàllaa ma baax ma mën a way way ko mu jëm si waaye sàccuma ko ci kenn jël jël way jaambur ñu wut ko naa la maa ko way déedéet waxuma ci tam lu ëpp ndax xam naa ne wax wax ba àgg ci faa war a ci sang baax ak say melo kon mën naa ne teengaluma jëwuma la fa kaafi oo nii yàlla na ngeen fayanteeg man bi maa si istum te la leen soob bi nas jee ci sama ràbb fim ti daahikum ci seenu tagg burdatan mbubbu raw man ngir sàkku li asiyaay ñeel ay yëf xasida gi nga xam ne moom laa jox la ko seetal nag loo ma ci fayee ci sa mbaax rek sa mbaaxa yow nag yaa loola yaa koy xam yow nag loola yaa xam nu muy toll. la dal kiraami nekk na fa way tedd ña nekk na fa gaayu baax ya mukaafaatun ak fayante muhabbabatun guddi gu ñu soppaloo wal jusu te benn xaaj hindahum fa ñoom hindahumoo yëti dana dikke bi ajji saa ci ay xaaj dane gaayu baax yi loo leen defal lum néew néew ñu fayale ca lu rëy rëy te buñ la joxoon benn xaaj mooy buñ la joxoon lenn lu tuutee tuuti mu wecci ay xaaji xaaj maanaam mu wecc ay jóori jóor yu bàyyi ko ci keneen seen leen lu tuutee tuuti wecc na lu bari bari keneen yar taaxu dana sigire lil bët li jëm ci joxe xindal madxi fa tagg ga kaf humoo seen téng mislar tiyaaxi xaliilin mel na sigirek ab xarit lil axillaay jëm ci xarit ya gaa yu baax yi boo leen taggee te yàlla tax seen loxo day sawar ci dal lay jox a jox ni nga xam ne moom la xarit di maaree ka sawar ci teeru ay xaritam ak nam ciy bëggee gaa yu baax yi noonu lañuy ñuy bëggee ci joxe lañ yor boo leen taggee te yàlla tax wala sa lii déddi ñeel ma déddi ma ñeel minnatun ak ñax wala xéewal fii maa ci li nga xam ne aqul danaa ko wax lakum ñeel leen wala yaquumu te du taxaw insha yi samak sos bi baax di shukri ci leen ni sant lii ma la tàggkat defuma ne dara la jàppuma ne lu ma war a wax naa la defal naa la nangam déedéet li ma wax ci yow du dara jàppi moo ko dara ne defal naa la dara ndax lu ma wax lu bari bari lenn ci cant ga ma war dong la li ma wax lépp daal weesuwut mënuma sant lépp lépp ma wax ca tuuti ca cant ga jazaakumu yàlla na leen fay xayrama ngën ji la nga xam ni yëj si dana ko faye alkarimu aji tedd ja bi ci ca moom xanaa walis nu bi ak bari ridwaanin ci gën jaa màggi ngërëm wa irdaayin aku gërëm loo bi àqi ahmada ci àqi ahmad taaha te mooy yonante bi taaha sayidi kay sama sang sanadi tey sama wéerukaay xayril xalaayiq yi mi ngën ji mindee fi min maadin ci aji wéy wa min jaayin ak ci aji dikk salla yàlla na dolli tedd nga wa sallamati dolli wóolu fii bat in ci ak tàmbali wa muxtatamin ak ci ak mucc rabbi sama boroom xale ci moom bila xaddin ci dul ab dayo wa in haayin akuk matale wa aalihi ak ñooñam وصحابي أك صحابة المقتدين يدوي روي به جموم تعداد ما لمف لنغا خمني كان أمنا من نتخين تأك تدو وإيمان أكوك جنجر ما دام لفك صحنا تقبا دافي فج لدى باب الكرامي فبنتب ويتا دنيا حوائج المقلين soxlay way ñak ña aqal la neewal na mu xilun aji neewal mu aji ñak rek min daanin ci aji jege wa naa naanin ak ci aji sori dafa daañ la woy ñaanal sëriñ bi ne ko yal na yal nanu la yàlla fayal ndax nun mënul laa fay yal nanu la yàlla fayal ngën ji pay defal la ngërëm la féete kaw ci mboolem xeeti ngërëm yi gën caa màgg ci daraja yonante bi nga xam ne moo gën mboolem ñi yàlla sàkk ñëwee ak ñi teew ak ñuy ñëw yal na ko boroomam dolli nag teraanga ak jàmm moom yonent bi ci njëlbeen ba ci ak mujj te teraanga ja jàmm ja bañ am na lim ba bare bari ba toll ne lu waay ma sa tudd wax ko ak lu waay ma sa junj junj wax yi nañ baree daal yal na ni salaatu salaam bare ci yonent bi ak i mbokkam ak i saabaam li fekk nga xam ne ñu ñàkk ñu ngay ñëw ca gaa yu baax ya ñu faj seen aajo li fekk looloo ngi am rek yàlla yàlla saxal salaatu salaam ci yonante bi ak mbokkam ak saxaabaam te ñu bare noonu mu wax walahu aydan alaa yëgal inna layla naka layla zabba dàq na naw mi samay nelaw xayaaluhaa jeeñeeram nga wa azlamati lëndëm lay sama guddi gi mun bu xaaba diirub fàdduna xilaaluhaa teru teem la fa bittu tama fanaan kama baat ni muy fanaane assalimu ku jaan mat mukaabidan di aji jànkonteeg xumooman ay njàqare ramat ni yoo xam ne sànni na ma nibaalu haa seeni fet bi mi ci ay xeeti tooke dafa tàmbalee xasida gi ni baykat daan tàmbalee seeni xasida muy tudd jongama joo xam ne dañu am lante woon jàmm mel dafa wëbatiku jàmbu leen ñu jële ci aw naqar lool nag noonu la tàmbalee xasida gi ne lay day munuma nelaw ndax di jeñar jëmum ji melne dafa taxaw fi sama kanam bam demé ba légui da melne guddi la won gu wër wa dem lëndum ris non la mel ci man ma fanan banan mu naqare naqare melne ku jaan mat te ganja, te taxalugu ma mëna su ko lugu ma fanaane nak ay njàqare yo dal ak ay tooke yoo xam ne rek ëpp na xel fa xus ñeel sama njàqare yanqoo bii ko la yanqoo mooy cosaan dafa woyofal yaay ji ngir woy wi wala sama guddi gi naabix yii ko jug la ba tey naabix yun la woon te ci man wala waniita te ajeef na bii ci man tay sun ak tooy mugg miita dirub dindeef na xibaaluha buumam ya laylaa moom nga xam ne moom mooma sori ma di ko jeeñeel tax na ma amee njàqare lu tiis mel ne yonente yàlla yanqoob ba yuusufa demee lu amoon ci njàqare ak tiis fi mu nekk moom laa amee ba tey waykat bi wax an naadixatu ak zubiya nii yu te ngay jàng diwaanam ci shuhara dafa doon tudd guddi koo xam ne daa mel ne jaan da koo màtt jaan ji doy waar joo xam ne neexuta lugg waxe ko waxin wu ñàng-ñàng mu ne nag sama guddi ne guddig naafixe googee lay mel ndax lay laa moom ma sori ma boole ci xel mu tooy xel mu dem moo xam ne daal daa mel ne nekkatuma fi alamat nii sànni na ma xadaatal bay ni ci suba fasante ga mu ci subag teqalikoo ga xam dañ ci ak tey bi asxumin ci ay feet fa faadat te baawaan dumoo yi samay rongooñ si seeni ngëf ka siyool ñu ngi mel ni ay yol wasaalat te mu songe bi say fil hajri ci si tong baada wisaalihaa ci gannaaw jokkam nga gannaaw jokkoonteem nga te genre ak neexoon sama xam xal yaxoodu ndax dana dellu si wisaaluhaa ak jokkoonteem nee su bëggoon yi teqalikoo daal da ko tey mooy da koo jublu xool ma ay bët yoo xam ne bu ma ko ne jàkk day mel ne ay fett la ma jam day def bu fekkee jong ma ñoom dañoo amanteeg moom jooy cofeel bu leen xoolee jàkk day mel ne da a jam ay fett moo tax mu ne su bëgg ñuy teqalikoo daa mel ni daal dama sànni ay fett samay rongoñ tàmbalee tooru nag mel ni ay ngës mel ni ay baag yu mag yu sotti ko mu ne nag gannaaw ba mu jokkoonteeg man moom lay laa daawal bëtiku song maag jees yi jàmbu wan gannaaw xaw ma ndax dana dellu jokkonte waat ak man amanteeg man wala am déet wala xëy ba déet benn sikk fii xaw muy nekk ci moom xayra an na xawaa maxaa ndare naka taxawaayam ba xanal xatti kenn xeeji xatu la wa jamaaluha te taaram ba albadru mooy weer wa at tamaamu wadimat amul benn sikk bu may taxawaayam bu jubbi te jekk ba mel ne xeej boobu ñu fudd ba mu jub xocc noonu la taxawaayam mel loolu de mooy sikkam ak it rafet ba mel ne weeru guddi fukki ñeent loolu mooy li nga waxoon dañuy feddle léeg-léeg tagg ci loo xam ne muru ŋàññ ndax bu ne amul benn sikk bu may taxawaay bu jekk bu yem ak taar bu mel ne guddi weeru fukki ñeent loolu yokk aw tagg la te boo ko dee xool muy nuru aw xas xakat xaa niru na ko almaha nag njaay àll yi xay nañ ci bët wa ar amuha seen kéwél yu weex ya nuru ko tulan ci ay doq waxal xaaluha te teqal maam suma xaaluha topp njamam la njamul xaalam la balwal fata mooy musibam cam sax arab yàgg nañoo muróole jigéen rafet ñi ay bët yàgg nañ leen muróoleeg ay nag njaay àll ba tey seen doq yu guddi bu jigéen bu guddee doq yàgg nañu ko nuróole kéwél mu ne dane moom ay bëtam daa rafet ba doo wax ni daal nuru nagu njaay àll ay bët ngay wax nagu njaay àll moo koy nuru ay bët mooy nuru jigéen ji ak doqam dafa gudd te rafet ba doo wax ni da koo nuru kéwél da wax kéwél moo ko ko niru teqal ma yi muy def ci ay tànkam ak njamul xaal la nga xam ne nag moom lay jamu bu ko góor ne jàkk rek day mel ne te tàggoo sagoom yàlla teg ko natt bu rëy rëy wa faraxun te kawar laxaagug ñeel na ko kël lay li mu ngi mel ne guddi nga xam ne faraxun day nekk mubtada laxaa nekk jaar mu juróor naat ci faraxun ko defee nag kël lay li làmboo xabar ji wal waccu te kanam nga badruhu mooy weeram wa waratu bu la aali te aju tooy wurus lulu faxruha mooy siiñam ma wa maqaaluha tey waxam ja daa wax ne jigéen ji kawaram dafa ñuul kukk mel ne guddig lëndëm këriis kanam gi leer nañ mel ni weeru fukk ak ñeent ci asamaan reexam nag dafa neex ay waxam itam neex tarafet mel ni muslu lu tooy xëpp woo xam dañ koy door a génn ca génnukaay ba kon daa wax ne reexam day neex ba mel ne wurusu loolu ay waxam itam noonu neex ba mel ne wurusu loolu watam ci dana dox alxuway naa doxinu ndànk wa te nas yi fi mel ne aji màndi wa in badat ndem feeñ na bi suddu fi dujaa ci lendumuk lëndëm ya nga ne ci taruk lendomie, ya taxaaluhaa da nga ko jortu shamsa dhahai muy jantuk yor yor ba jigen ci bu dox day jaayu melne ku dafa rafet te leer kanam ba nga bu guddi gi lëndëmee nga seen ko ngay defee ne ab gant la bu ne tàyyi ci digg bëccëg waaye du rekk ab rafetaay fa kullu jamaalin bépp taar xadd alaahu kawe na ko jamaaluha taaram ba wa kullu kamaalin gépp mat xadd alaahu kawe na ko kamaaluha matam ga jigéen ji muy tagg lay wax naa taaram bi moo féete kaw taar yëpp matam gi moo féete kaw géppuk mat fa waaxan maa ngi yéem ak yéem li lay laa ñel lay laa ñu seet ne da cee teg law xilaalu xilaaluhaa daaneele lay sa taddoomu xilaaluhaa mel ne yaari xilaalu yëpp da koo def jamu xëy na nag su doonoon law ya doomu doonte dana sax xilaaluha ak xaritoom xilaalu boobu mu nekk masdar boo àggee fee ne walakinaha waaye moom lay sa tadoomu du sax xilaaluha ay jikkoom lay gën a niru noonu waaye teewul nag yëpp moom tadoomu yëpp dañoo am taa nga xam ne day wane ne baat bi leen topp jamu taksir la daa mel daa bëgg wax ne cëy lay bu fekkoon ne kum xaritool jàpp xaritoo gu muy sax rek di wéy kon day dana neex lool waaye moom nag ak xaritoom ak jikko yam lay wan dara du ca sax day naxi rek li ngay gis ci moom fi saasa nga daal gis lu wuteeg moom laqad dal réer na nafsi sama bakkan fii mahaamihi xubbiha ci man ngi cofeelam xala annahu ànd ak naka la mbir moo di dalaaluha réeram nga cànkuteem nga rusdun matu xel la la day xaa fa moom sama bakkan dafa bëgg-bëgg laylaa ba mel ne dafa teg njëxam xamatul fu mu jëm ngir rek bëgg ëpp gi nga xam ne kon bëggu ëpp gi ak càngute la waaye càngute gi moom sama bakkan da koo jàppe matu xel ak rafetu xel maanaam dafa bëgg-bëgg laylaa sànku waaye càngute gi jàppiwu ko sànku da koo jàppe matu xel ak aw ca yoon wa laqad laama ni yedd na ma alxudaalu way yedd ya fiihaa ci moom wala ubal te faaliwu ma wa baana te feeñ na lii ñeel ma di ànnal makkara naka warga bi sabbi ca soppe ba baaluhaa mooy mbiram ñi ngi may yedd rek naa ma yow daal ni nga bëggee lay laa xawma lu ko jar waaye man faaliwu ma yedd teewu nag ma xam ne moom mbiram moo di rek soppe bu mu am wor laa wor nax laa nax du matale mukk wala re fa daha kon nanga ko bàyyi waxudu te nga jàpp mu xal baa naaga guy aji tal mooy naaga gu rëy wàjj naa guy aji rëy ay nenk tang ñaari yax ya séq bët ya ci wet gu ne moo tudd ay nenk tang simil la tan guy aji gaaw ka xam ni ka kook day mel ni sa yitte in ayaa ndem lottal na alxitaaqa naaga yi doy gore rimaaluha seeni beeñ ne bàyyil soxna soosu bàyyil laylaa mi ngay tudd te jël gëléem goo xam ne day am doole la ñuy tagg ci gëléem yépp nekk ci moom loo bëgg ci ab gaawaay noonu lay gaawe jamono yi nga xamee ne ay moroomam aw ca beeñ ba te leen a sonaloo mënatuñoo dem ñu tële moom day gaaw a gaaw ba mel ni sayite noo bëgg rek mu gaawe na ay moroomam day tële moom mo melni sa yité ya, no bëgg rek mu ne démé taraha da nga ko gis la da bahri sarabi fa geejut janux la safinatan muy kem gaal tajubu kok dana dog alfayafi mandiya anna iyati yedway sori majaluha seen wandelu kay buna ju tangi jër ba boo séenee yenn béréb yi day leer leeri mel nem ndox fekk na njanux rek la maanaam naaj tàng dong la day leer leeri mel fekk na njanux rek la maanaam naaju tàng dong la waaye du ndox yooyu jamono gëléem gi day dox mel ne gaal guy xotti ci biir am ndox lu àll yi sori sori rek ma ngay dem rek di wee bi wii bi haa bàyyi ko nag mu wéy ca téppéeralam nga is aadi haa ak booleem nga dox bu dégg bëccëg wa bi dul jëtin ak ci ak yuq muy am rañaan ila an tuhatta ba dee fi rihaaluha ay raxlaam bi diyaari ca kër ya te diyaari unaasin këri ay nit la saadatin ñu di ay sang ahmadiya